bu nekk incha allah sàcc du fa dugg jinne dafa yàq kër ga du lakk bal dafa tàkk moom i téeméer la ci topp di xale bi tuur xam ngeen ne tuur ndox moom i téeméer la lu ci topp nag mooy ñaan gi mu déggal ak làmmiñ ak bët bu xam ngeen ne cat lu ma a bëgg la boo demee ci xasida si